asalaamaaleykum wa rahmatulah waaw moom Ousmane Diaw borom TDV ñoo ngi lay siyaar bu baax euh, di la nuyu di la ñaanal yàlla sa site bi gën a jëm ca kanam ba li nga ci bëgg nga am ci lu ko ëpp incha allah ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa waaw man la daam loo ndaam xàbbu jaaykatu jën. jaaykatu jën yi na ngeen di waajale lii di euh, gàmm gi ñu jëm incha allah champ de course. waaw ma Ousmane euh, ñun jaaykatu jën yi niñ koy waajale mooy euh, comme ni ñu ko daan waajale rek xëy na ren sax mooy gën a pur ren mooy gën a neex jàpp nañ ni ren moom waaj biñ koy waaj euh, mel na ne mosuñ ko waaj sax ndax dañuy gis ne at mu jot rek bu sëriñ ñëwee ci course bi danañu dégg lu lu ñu yéem ci alquran dégg ko ci li nga xam ne si ne mooy suñu diine islaam mu ñuy jàngal loo xam ne si mosuñ koo dégg fenn mosuñ koo xam fenn ah, ci sëriñ rek lañ koy déggee moo tax ñoo ngi koy waaj bu baax a baax a incha allah ngir fekkeeti ko ngir dundati bu baax a baax ak moom dundal suñu ruux incha allah. lan la leen sëriñ bi jaral ba tax ah, ñu gis ni moom fu mu wootee ngeen fekk ko. waaw sëriñ jaral nañu lu ne jaral nañu suñu bakkan ndax dañ ko daan wax ni eh, sa bakkan sa deret sa temps lépp loo xam ne si ne sëriñ bi soxla na ko rek eh, war nga koo mën a maanaam jox ko ko. te li wér wur mooy loolu mooy dëgg ndax bu nekkee ah, eh, nit ki daf lay wan yoon wi nga xam ne boo ko wàccul ala siraatul mustaqim ah eh, fa nga bëgg dem incha allah ëllëg danga fa dem a ah, xam nga ni kooko doo ko jëndee kenn te Serigne Moustapha yoon bi mu ñëw wan yoon boobu rek la waaw néewul kenn kaay ma yóbbul àjjana néewul kenn kaay ma Euh, euh, àggale la foo xam ne si ne fu nu mu tuddati la waaye li mu li mu wax mooy kaama jàngal la teg la ci yoon wu jub woo xam ne si ne euh, ëllëg danga nga dajeeg sa borom te boo dajeeg sa borom da nga xam ni jëf nga loo xam ne si ne bu la ko yàlla fayee doo rëcc loolu sëriñ Moustapha rek moo ñu ko moo ñu ko defal. ñu gis ni champ course jaral na leen lu nekk. ba lu mu leen fekk ngeen bàyyi ku fekk ka lan moo nekk charge de course ak lan fay jëlee. waaw champ de course lu rëy moo fa nekk champ de course bu ma juumul 98 euh, euh, ba léegi ñoo nga fay gàmmoo ci kanamu maam Cheikh Ahmed Tidiane moo ñu faraan defal gàmm ba tey mu jox euh, suñu kilifa mu Moustapha si laataa muy génn àdduna jox na ko ndigal pour mu continuer dafa def gàmm ah gàmm yooyu nag la jaral ñu fay dem mooy xam nañ ne leer rek moo fay bale wax dëgg yàlla mbégte rek moo fa am champ de course ngay dem doo gis lenn loo xam ne si ne mën nga ni lii lu ñaaw la waaye lu rafet rek ngay ngay gis yaakaar naa police bu Sénégal ah euh, leeral nañ ko euh, li wër te wër mooy daaw bu ñu fa demee gisuñ fa lenn lu ñaaw gisuñ fa kenn kuy yàq kuñ fa gis rek kuy defar nga kuñ fa gis rek ku bëgg jub nga kuñ fa gis rek kuy jubal nga ndax Moustar Sidi moom Moustar Sidaat yaakaar naa njub rek euh, lañ leen tànnee ak jubal macha allah. loolu di fa balle ci leer ngeen koy taataan senegal daf ko xamul wala ak lan moo tax mu mel ni euh, Serigne Moustapha dañ ko singili waaw kay xam nga Sénégal euh, leer gi euh, ñi ko ñi ko gën a xam du ma ne xamuñu ko waaye ñi ko gën a xam mooy ñi ne ci keppaaru Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha si ndax ay ndaw lañ yoo xam ne si ne yar na leen waaye jàngal na leen waaye wan na leen yoon wi ba nga xam ne bu ñu gisee lu baax danañ ko xàmmee bu gisee lu bon danañ ko fa teggi duñ ko sax xool loolu la yàlla bi ne Serigne Moustapha mu def ko ci ay ndawam euh, singale gi ñu ko singale nag mooy bu nekkee euh, da nga nekk ci sa biir ay famille te cër bi doon benn cër boo xam ne si ne euh, da ngeen ko waroon a séddoo te yàlla dogal kenn du ko séddoo kenn ko war a jël ki ko jël rek kooku dañ koy singale waaw loolu moo feeñ ci Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Euh, ba mu feeñee ci ay famem ñu ko gën a jege ñu ko gën a noonu te teewul moom mooy sang bi kon sëriñ Moussa bu ñu ko noonoo dañuy jàpp rek moom mooy kii xam se ne moo yor ndono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu waaj ko e, ci wàllu ruux te xam ni suñu ruux moo war a dund du bakkan la ñuy dundali du ay lekk mooñu ñu fa yóbbu du ay naan moo ñu fa yóbbu waaye suñu ruux la ñu war a dundal kon nañ ko bàyyi xel bu baax a baax tàggat ko bu ko defee li ci des mooy dem góor góorlu jéem a taataan euh, duy ci leer bu ko defee ah ñu xam ni dafa am sang boo xam ne si ne moo ñu tax a jóg waaw lépp lu nekk ci suñ kanam lu dul moom rek ah, nañ fexe ba jëlee fa loola ngir lan jàkkaarloog Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy eh, amuñu lenn nag loo xam ne si ne mooy dox suñu diggante ak jàkkaarloo moom incha allahu rabbi ndax moom rek lañ xam ni bu ñu jàkkaarloog moom suñu ruux dund moom lañ xam ne bu ñu jàkkaarloog moom danañ beesaat ci alquran waaye danañ beesaat li nga xam ne si ne mooy lu ñuy dund ta muy diine islaam kooku rek ah, mooy ki ñu jaral loolu ndax moom lañ gis si moom mu réussir yooyu yëpp kon euh, loolu la ñuy dolli ci côté boobu. ndax du xaru mm, mbas mi ñëpp di ko daw yéen ngeen ni da ngeen di dem dajaloo ji maanaam du xaru ci mbas mi beneen daan du xaru taw xam nañu ak risque yi mu àndal ngeen ni da ngeen di dem dem gàmmu ji. non euh, du xaru du xaru parce que am na yeneen i manifestation yuy jàll. te daanaka bu tollul ne gàmmoot jege na ko ndax euh, Tiwaawan gëjuñu fa daje nañ faak suñu sang Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha Sy ci tam xarit bi jàll euh, mu duyool ñu ba ñu feesal suñu mbuusu leer xëy na euh, daf da dafay ñëwaat rek ñu dellu ngir dolli waaye li ñu jëlee woon tam sax mën naa la wax ni jeexagut kon te boobu mbas maa ngi fi waaye li ñu waroon lépp ci mbas mi suñu li ñu war a jël comme ay mesures jël nañ ko te ñun ku ñu xam-xam ci yar ak discipline kon lépp loo xam si ne war nañu rek danañ ko taxawee ba nga xam si ne mbas mi moom du ci am sax wàll ndax dem nañ fa daaw ba jóge fa te yaakaar naa dolliwuñ dara ci mbas mi dañ koo wàññi waaye dolliwuñ ci dara ok kon du xaru mënu lekk xaru kàddu yi mujj yi mooy di ñaanal suñu sang rek yàlla may ko wér e, goo xam ne siine ak kattan e, dolli li nga xam ne si mooy mën-mënam waaw e, ndax ba mu mën a ñëw li nga xam ne si moom la ñu soxla te mu ñu ko mu ñu ko naan defal mu defalati ñu ko loolu rek lañuy lañ koy ñaanal yal ko yàlla may wér ah, may ko suñu capitaine maam Cheikh yàlla jàmmal leen sàmm leen aar leen ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bañ fekke ko ci jàmm incha allah jërë jërëjëf